إلى الهدى إلى الهدى gannaaw sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi mbooloom yi maa ngi leen nuyoo jiital iyaa ak ku teewal fii ak ku teewal fii di nuyoo Ismaila Haydara ku xam ne moo imaamul ratib Ziguinchor ak mbooloom ulamaa yi ak aima yi imaam yi boroom xam-xam yi ñépp maa ngi leen nuyoo te di la leen ziyaara te di leen wax de wax ne bismillah bismillah ahlan wa sahlan wa marhaban kontaan nañu ci teewaay bi maa ngi nuyoo ñu fi ñëw ñépp góor ak jigéen ndaw mag ak ndaw ñépp maa ngi leen nuyoo ti deen wax ne bismillah bu ootee ñu wuy la moo gën a neex ñi fi ñëw ñépp maa ngi leen santa di leen ñaanal yàlla di leen wax ne bismillah bismillah bismillah eh, teewaay bi eh, sant yàlla la teewaay alquran la amul benn teewaay bu xam ne bu gën ci àdduna bu gën teewaay alquran asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala yàlla mi ñu baaxee waat ñu dajewaat fii ci Ziguinchor ci turu délégation bi jóge dakaar ci turu fédération nationale bu association jàngalekatu alquran ci Sénégal wala daara alquraan yi ci biir réew mi ci seen tur waaye yaatal ko ci ñi nga xam ne ñoom la àndal di directeur commercial bu Sénico ñuy suñu partenaire diwu seenu géey ak oustaz Hassan Seck ci seen tur ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp nuyoo bi gën ci nuyoo yi lamboo barke ak yërmande ak jàmm ñu ngi leen di ziyaara jiital ci nuyoo bi Chérif al imam Ismaïla Haydara kilifa diine yi fi teew waaye sëriñu daara yi mooy jàngalekat alquran yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wàccee seen wàccuwaay di leen ndokkeel itam ci jotaay bi ndax jotaay alquran la fii ba bañ fiy jóge gannaaw loolu liñ leen bëgg a rek mooy lii ñuy def lan la li ñuy def mooy fédération nationale mooy mbootaay boobu nga xam ne moo lënkale mbootaay yi bokk ci ñi saytu daara yi ci réew mi ci Sénégal ñoom ñoo organiser loo xam ne mënuñ cee dem ñoom kese am keneen ku daara ñor dundam lépp di daara di sëriñu di doomu daara ne leen day mun naa leen fare fenn foo xam ne munu leen fa fare seen bopp kon waaj leen fa ngeen mën a fare seen bopp ngeen fare foofu man ma fare leen feneen mooy ku ñuy wax Abdoulaye Dia di directeur ci cité boobu ñuy wax Sénico nga xam ne produit yi ngeen gis ñoom ñoo koy def ñoom ñoo koy defar lu yëkkati lu am solo ne pare leen pare naa pour jàppalanteeg yéen ci lii ngir ñu mun a soññ xale yi bëggloo leen alquran bëggloo leen njàngum alquran bëggaloo leen xam-xamu alquran ak xam-xamu diine ku la defal loolu amoo payam yal na yàlla feyal ñu leen bi ñu tàmbalee ba léegi li ci aju yépp ci dépense moom moo ko def waaye itam ànd ak ñu ko déggal lool muy directeur commercial am muy Ousseynou Gueye nga xam ne lu metti métti métti doo xool ci kanamam ba yëg ne kii sonn na ngir rek bàyyi xel ak wormaal ki nga xam ne mooy kilifaam loolu kon am na lu muy tekki yal na yàlla feyal ñu leen yal na yàlla barkeelal leen ñu ne kon léegi nañu boole Sénégal yëpp Sénégal yëpp lañu wax de waxuñu ñoom diw ñeneen ni ñu beddi leen képp kuy ab képp kuy jàngalekat alquran ci Sénégal bokk nga ci biir. boo yëgee boo yëgul bokk nga ñoom la ñu wax ne nañ leen yëgal ñu waajal leen ndax bu ñuy yegg si Ziguinchor ñu mën a dajeek ñooñu pour tànn ci ñoom ñetti xale kon ñetti département fi ne département bu ne ñu ne ñu tànn foofu ña mokkal alquran ci département ba muy fukki xale département Ziguinchor fukki xale département Oussouye fukki xale département Bignona fukki xale ñoom ñoom ñetti département yooyu ñu boole leen yendoog ñoom ngeen di seetaan ñun ñuy liggéey bu ñuy jeexal ñu génnee ci ñett ñetti yooyu mooy ñi bokk ci ñetti ñi jóge séeju ak yeneen ñetti jóge jógee Kolda ak ñeneen ñu jóge Tamba jóge maatam ñu boole leen ak ñi jóge ci Sénégal yëpp ñu dajeek ñoom ci biir weeru koor bi ci Dakar le 26 vingt 27. le 28 pour lan pour ñu def beneen joŋante ñu seet kan mooy kii raw ci senegal yépp déplacement ñoo ñuy jóge Ziguinchor ak ñu jóge Kolda ñu jóge Sédhiou ñépp kooku ma leen tuddoon léegi mu a jël naa ko en charge danaa fexe ba seen déplacement passe aller le tour man maa koy warlu li ñuy lekk foofu ñaata fan lañ fay am lépp nee na moom moo koy def loolu loolu mbokk julli ñi kenn amul payam yal na ko yàlla fay yal na yàlla kàttanal ko te nee na incha allah bii mooy bu njëkk bi bu jaaree yoon bi ñu ngi xayma def na ci lu dem ci euh, soixante quinze millions quatre vingt millions mais nee na bu jaaree yoon attan na cee def alalam lu dem ci ñaari téeméeri millions kooku kooku ñëpp amee ameel ko njukkal ñaanal ko. boo ko ñaanalee dina am li mu war a am boo ko ñaanalul it dina am li mu war am waaye nga ñaanal ko ndax nga bokk ci ndax loo ko ñaanal yàlla dalay may nga mën a am lu mel noonu moo tax ma bëgg ñëpp ñaanal ko ñëpp nañu wax jazahullahu xayran jàng nañu ay aaya léegi aaya li lan lay lëb lan la wundu yàlla wax ne ñi nga xam ne dañuy jàng alquran mu jëfandikoo inna xarfu tawkid wa nasbin inna alladina yatluuna kitaaba allah mooy ñiy jàng alquran kon sëriñ daara yi ñu ngi leen di ndokkeel waaye yéen taalibe yi jàng itam ñu ngi leen di ndokkeel ñuy jàng alquran di taxawal julli waaye mu am leneen loo xam ne munta ñàkk mooy lu ñu tuddee al infaq fi sabilillah lu ci yàlla teg wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya ñu jël ci leen yàlla denc dënk ci teraanga ñu di koy dépenser ci lu neex yàlla luy jur yàlla teral leen àdduna teral leen laaxira yàlla defal leen ko moo tax mu ne wa anfaqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya ñuy dépenser alal boobu ci lu neex yàlla ci lu nëbb ak lu feeñ lu nëbb mooy lu kenn yëgul te mooy sirran wa alaaniya mooy lu deme nii nga xam ne nee nañu kiy jël première ci Sénégal yi yëpp dina am sept millions cinq cent loolu kon alaaniya la pour képp ku yàlla dënk teraanga nga am alal ah waa ko joxe woon nañu yoon bi ba kuy defati ngir yàlla fii nga ko war a def ci alquran ku jàppale alquran jàppale nga lislaam ku jàppale alquran jàppale nga diine ku jàppale alquran jàppale nga sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom gàcce nga lay may moom yal na yàlla fayal ñu ko yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla aar tey nag ñu ngi fii si Ziguinchor fa tabarakallahu ñu nuyu suñu mbokk soose yi suñu mbokk joolaa suñu mbokk mankaañ yi waa Ziguinchor ñëpp bàyyi ñu kenn ku lum juum ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a yiw nuyoo bi gën a tëdd waaye itam nuyoo bi gën a sell mu mel ni incha allah du ñu guddal dañuy du ñu def lu dul ànd ak suñu caméraman bi ñu àndal muy Abdou Ndoye Petit dem déglu ji xale yi ñu jàngi alquran kilifa yi teew nañ ñu ngi si biir fa tabarakallahu bu ñu paree dellu sewaat ak yéen présenté leen xale yi nga xam ne ñoom la suñu borom dogal ñu jiitu fii si diwaan diwaanu Ziguinchor kon Abdou andil leen mbokku téléspectateur télévision Futur Média li nga xamante ni moom lañ leen jël seen fii si Ziguinchor. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله قوي شديد العقاب والله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 زين للناس حب الشهوات من النساء من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا wallahu indahu husnul maab ki ngeen gis ni mu yéeg mooy xale bi nga xam ne incha allah moo bàyyeekoo fi nga xam ne mooy Ziguinchor di Abdou Gueye moom moo jiitu si département bu Ziguinchor ki koy jox neexal bi moom mooy Ousseynou Gueye directeur commercial bu Senico ànd ak ñun si li nga xamante ni moom mooy tournée bi waaye itam jox ko peñe bu am solo bi nga xamante ni itam moom la ko Senico neexale am na meew alib am na chocolat Forcao ak produit yi ngeen di gis yëpp macha allah muy produit Senico waaye tegal ko ci itam li nga xam ne moom mooy transport am ngir nga mën a delluwaat fa la nga xam ne fa la jegoon si jàmm ak salaam euh, Abdou Guèye euh, Senico fédération bi TFM ñu ngi lay ndokkeel fa tabarakallah ki ngeen di gis fa tabarakallahu mbokk yi mooy ki nga xam ne moom moo jiitu si département bu Oussouye di ki nga xamante ni moom mooy Omar Diané fa tabarakallahu gis nga directeur commercial Ousseynou Gueye bu Senico moo koy jox alquranul karim bi tegal ko si peñe bi ko Senico neexale am na mayonnaise jadida am na chocolat Delia ak produit yi ngeen di gis yëpp ñoom meew xalib jox ko itam ah. li nga xam ne moom mooy transport am mu dellu fa mu jege woon incha allah ki nga xam ne mooy Omar Diagne moom mooy teewal département Oussouye fële sa Dakar le 27 juin incha allah waaye tamit le 28 mooy fay bokk teewal région Ziguinchor bokk na ci fële nga xam ne grand théâtre lay doon fa tabarakallahu waaye itam bu leen fàtte ne eh, Sénico utal na leen ay tailleur yoo xam ne ñoo leen di ñawal ngir bu bés baa ñoom ñëpp ñu niroo ay yére kon Sénico jaaraama yàlla na leen yàlla yokk ba ñëpp yëg ko produit yaa ngi nii dee leen ko jënd dee leen si bàyyi xel bu baax a baax ku jàppale Sénico jàppale nga alquran ku jàppale alquran jàppale nga lislaam ku jàppale lislaam sagal nga ki nga xam ne moom mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma tub alayna allahumma